fanweeri poñ yi laaj am na ko bi maana am na ñaar fukk ak juróom yi am na vingt ci 30 yi ñu koy laaj ci mokk am na vingt ci liñ koy laaj ci walu xam bind yi di alquran ndax mokal gi ak bind yi lu ci nekk lañ ci laaj bi am na ci 29 bi bii am na ci vingt-sept ci walu mbind mu rafet mi amna ci 40 soo ko boolee ko muy quatre-vingt-seize virgule soixante-quinze kon am na ci téeméer bi ñu koy laaj quatre-vingt-seize point virgule soixante-quinze kooku fu mu dëkk Tuuba la dëkk jan daara la jànge daaray sëriñ

ñaar fukk ak juróom-ñett yu teg 5 30 yi am na ci 28 virgule 5 ci wàllu mokkal alxuraan bi ci wàllu xam bindiinu alxuraan bi fanweer yi ñu koy laaj am na ci 29 ñaar fukk ak juróom-ñett ci wàllu mbind mu rafet mi ñeent fukk yi koy laaj am na ci 39 virgule 75 soo ko boolee mu am quatre vingt dix sept virgule vingt cinq quatre vingt dix sept virgule vingt cinq am na ko ci téeméeri poñ yi ñu koy kooku fu mu dëkk Taïf daaray kan daaray Serigne Fass Cissé nu mu tudd Mouhamad Mbacké Taïf kon ñu ngi sàkku ci Serigne Mouhamad Kunta mu ñëw jox ko Mhm. wàllu mokkal gi biñ ko xaymaa di ko laaj fanweer trente am na trente yëpp wàllu bindiimu alxuraan bi ñu koy laaj fanweer am na ci vingt neuf mbind mu rafet mi ñu koy laaj quarante am na quarante yi fu mu dëkk Touba daara mooy daaray Serigne Abdoul Ahad Gueye aw turam mooy Cheikh Anta Gaawaan Gueye def nañu wax ni ki jël premier am na juróomi million ki jël deuxième am na ñeenti million ak genn wàll ki jël troisième am na ñeenti million waaye lu am solo yi trente yi nga xam ne ñoo doon def concours bi trente deux yi ci des kenn ku ci nekk c 3 jox na ko deux cent mille francs yëbul foofu C3S xale bu jigéen bi nga xam ne mooy soxna Ndeye Mbène Diop Ndeye Mbène Diop bokkoon na ci concours daaw amut waaye xàddiwul mu ñëw bokkaat ci concours ren bi bi ñu defee euh, présélection bokkoon na ci 60 yi biñ ñëwee ci 35 yi mu bokkaat ci waaye suñu borom def gàññewul seetloo soo xam ne xale bu mel nii di xale bu ci génn am jom nangoo góorgóorlu nañ ko encouragé wax ni kon nañ ko jox deux cent cinquante mille ngir encouragé ko ak ne ko ngir encouragé ko moo ko ay moroomu jigéenu bu ñu yokkat bu ñu daw bu ñu daay nañu dem ànd ak yëf yi ba seen moroomi góor yi ni ñu koy amee ñu amee ko loolu kon moo tax jox na ko deux cent cinquante mille kaamil bi it wax nañ ne soxna si moo ko bind moom soxna Ndeye Mbène Diop te mooy kaamilu ñetteelam mooy kaamilu ñetteelam ñetteelu kaamil kon mi ngi lii tax